taaru Sénégal nag te mu jafe-jafe yi nga xam se moo nekk ci biir sëy ñu ciy ànd ñi nga xam se tamit baaxoon nañ ci ànd muy associé ñu daal di ànd ak nag mu daal ñuy tojal yax bi waaye tamit bala ñoo nuy suñu gan dañuy daal di bàyyee asu mu nga xam si ne moom lañ daan bokkal émission bi. salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci 24actu.com euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar képp ki nga xamante ne yaa ngi suivre seen site internet bi di 24actu rawatina euh, seen émission bi di taaru Sénégal comme ni ko soxna Mame Fatou Kébé waxee sànq rek ne Sénégal yàgg naa taaru euh, mu nekk loo xamante ni mën nañ ne émission boo xamante ni bu am am solo la ndax thème bu nekk mën nañ ne dina ci soxeekoo ndax dinañ dugg ci biir kër yi ba ci biir mbedd yi ak place yi fépp bàyyiwuñ fépp foofu foo problème rek dañ fay dugg xuusa ci bu baax a baax am ànd tamit ak suñu gan di Tata Soxna Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko ziar xam naa ñu bàyyi ko mu nuyoo ci kanam waaw jërëjëf soxna Astou ci nuyoo bu matale boobu ñu daal di fas yéene nag suñu gan daat koy nuyu muy Tata Soxna Ndiaye mu nekk tamit bàjjenu gox ca Sura soxna ñoo lay nuyu mm. Mm. Mm. ñaan ñaan yi mu bokk ko ñu bokk liggéey yi. xam ne yàlla defal nañ jàmm. ñu dalal nekk bàyyi la wax Touba sax. ba defal ko ma liggéey macha allah. ñaan yàlla defal waaye tamit nga def waaw Tansono nga defee ne tamit est-ce que loolu tamit loolu góor ñi du leen faral di dal ndax téléphone yi tamit léegi góor ñi ñeme nañ ko lool ba nga xam ne ni ñu war a tale seen soxna yi sax taleetuñ ko ndax loolu mu wax tamit fi ni da cee am ndax góor da nga ciy gis ko xam se ne tey ji whatsapp day yor whatsapp ba xolam sedd <laughs> mu daal di dem yi vakalam wala mu tëdd ci wetu soxnaam di wuy téléphone di wax ak keneen beneen jigéen mu leer na la yow tey loolu est-ce na tamit nag day te bu ñu jàkkaarloo yow mel ne rek yaay àjjana ah te boo gisee seen téléphone loo xam ne boo jàkkaarloo ñoom di leen ko xoolee te xool du neex jurug mbañeel day jurug mbañeel mbañeel boobu nag ñàkk kóolute moo koy indi te boo ko wóolootul rek boo loo ko bëggoon bëgg doo ay war la ay war la war lay tax manque de dafa nekk loo xam ne si lu dara jara daw la jara moytu nit ki su la yàlla boolee moom rek dëggu leen ànd leen ci dëkk wóolonte leen kenn ku sa moom bu fekkee yaa ngi ci dëkk yow sa téléphone nga ko ko lii bu fekkee dëngoo hmm. nga jaral ba ñoom jël sa téléphone ñoom wuy say appel hmm. même jigéen ci tamit li ci góor ni mi ngi jigéen ñi waaw waaw ci jigéen ñi góor ñi mi ngi ci jigéen ñi am na jigéen ñoo xam ne tamit jubuñu jubuñu nañu nañ leen seen jëkkër di bëggee ñu dem ba ci yàgg mu wóola digu leen ci ñoom ñoom la dañ koy dañ leen gis foo xam ne si mm. du fu baax mm. wala ñu gisal leen koo xam ñu ànd koo xam ne si mm. du ko baax te àndandoo day yàq nit te li fekk si yow jikko bu baax mu dindi dafa foor àndandoo dafa foor lii am ci góor ñi am na ci jigéen ñi mm-hmm. waaw jërëjëf Tane Soxna associé la fi Soxna daane la léegi fi la ñu dugg muy li nga xam ne jigéen ñi tamit dafa am ñoo xam ne dañoo dëng nee na ndax tamit ni mu amee ci góor ñi noonu la amee ci jigéen ñi ndax sëy boo gis mu am problème rek bu góor ga tamit amee tamit ndëngte am na ci jigéen ñi yow loolu nga ciy wax ci loolu oh, manque de confiance moom fi ma ciy dikkee mooy bu dee ci cadre sëy moom euh, olof dafay faral di wax ne lu feeñ ci sëy rek nuyoo woon na ci ngoro ba dañ koo fayut ndax parfois nga nekk di goro ak nit ki Euh, mën na la wan image boo xamante ni wala muy lay wan loo xamante ni mi ngi ñëw ndànk ndànk ndànk yow tamit sa mbëggeel wala bëgg a takk kooku tax na kat nga jël loolu lépp suul maasa la ci biir di ko bàyyi ndànk ndànk di ko bàyyi bàyyi nga dem na ba ngeen nekk sa biir néegu say nag loolu nekk loo xamante ne lu lu gën a lay nekk te fekk na yow ba ngeen di ngoro yéen ñaar mi ngi doon commencé di ñëw xëy na sax mën nañ ne dañ ko spécialisé ci li nga xamante ne moo di ci wàllu say rek mais ba ci entreprise yi ba ci feneen ak feneen ak fu mu mënti doon rek manque de confiance am na fa même ci affaire téléphone yi nga xamante ni mën nañ ne ci la ñuy wax mais téléphone boo déggee parfois da dégg ñu naan euh, bul bul yëndu parce que soo yëndoo rek da nga gis muy sa téléphone jëkkër muy sa téléphone jabar parce que man mii kat bu fekkee damaa sob ba sama sama jëkkër bu tegee téléphone am ma jël fexe ba xam code ba bàyyi ba mu dem ma tijji xool dinaa gis ba gis loo xamante ni sax leer na ma ne su ma ko yënduwutoo mën naa kaa bañ a gis même tey ji tamit sama jëkkër tamit noonu su ma tegee sama téléphone bu fekkente ne moom jël na ko ma yëndu ci mën na ca mën na cee gis loo xamante ni euh, lu mu ci wartoon a gis la nit ku nekk rek nga xamante ni sa soxna la wala sa boroom kër la ak ku mënti doon ñëpp lañ ko yemale sax ak ku mënti doon rek yow fexeel ba la nga warloo moom nga def ko mais bul yurndu bul geesu. Uh-huh. waaw asul ba tey fi ma li ma la ma ko wax léegi rek ñu dikkaat ci ndax temps soxna tamit dafa dikk ci li nga xam ne moo di jigéen ñi nga xam ne dañuy eh, xaw tamit eh, dëng maanaam bi eh, ni ni ngay kiiwee tamit ñu tegee seen seen téléphone borom kër mu tegee dañuy di li ñu di xool comme ça ni nga waxee léegi ko xool bu nekk gis te tey ji loolu tamit danga ciy gis jigéen ñoo xam ne dañ ci histoire seen i borom kër ba ñu daggalante si saaga ay xeex sax jund ci lan nga ci ma. Mame Fadé li ma la wax tamit sànq day desuwaat rek maanaam téléphone moom heure boo yëndoo di nga gis téléphone heure boo yëndoo di nga gis sa jëkkër sa parfois mu am mu am ay mo ay xale jigéen yoo xamante ni dañ koo yeb de di ko wooyee séeri baatu séeri boobu sax mën naa tax sax nga dégg vocal mu ne ko séeri nangam da nga jàpp ne gelam la waaw waaye léegi téléphone yi xam nga yi moom yàq na dañ naan sax réseaux sociaux yi yàq na lu bare bare waaye téléphone yi rawatina ci est-ce di joteeg sa jëkkër ci téléphone ndax am na ñoo xam se ne dañ naan code bu seen jëkkër def ci téléphone mhm. fexe nañ ko ba xam ko ndax tey ji da nga euh, léegi boo boo ci xoolee sa xol day naqari mhm. daal gis góor ñoo xam tey ji tamit ñu jote caag yow taxul ñu fase la ndax mhm. am na jigéen ñoo xam tamit fa la ñuy jaar teg fa seen ba dañuy bëgg tamit sëy boobu daal di dakk daal di jeex est tamit loolu yoon la ci ba tey war naa mën a tasub sëy non téléphone moom man ci li ma yaakaar sama xalaat bu gàtt war na mën a tas ci sëy ci côté ci ñi nga xamante ne mën nañ ne seen xel dafa gàtt parce que am na ci ñoo xamante dañoo jàpp ne sëy moom tas la te sëy la ko takk tasu ko na ci yoo xamante ne am na ci ñoo xam ne ña ngi fay jànkonte lu loo xamante ne buñ la ko nettali woon da nga naan déedéet mais ta sëy moom la dem sa jàkk ji fas ko demaatu sa nga xamante ni yaay borom kër gi war a yor baat ne ko fase ñëpp ngeen jàkkaarloo bu amuti seeda tamit sëy tasul mais kenn ku ci nekk amal confiance ci sa borom kër ba téléphone bu ko tegee même bu fekkee sax da ngaa am soxla ci téléphone xamal fa ngay commencé xamal fa nga yem mais vocal ko digloo mën ngaa dem ba dégg loo xamante ne loo warul dégg la Facebook am boo ci duggee noonu yeneen na yeneen no réseaux sociaux moom yëpp a da ciy man dem ba am ak sa jëkk sa borom ko yenn relation yi yow tamit nga jàpp ne kii kat day da day moom wala nangam sa xel tamit bu gàttee ak manque de confiance mën na dem ko ba yow ko nga ne kii mën a dem yow tamit la sa sëy fekk na yow dangaa ëppal dafa loo xam ne lu baax si nit tan di dikkaat ci yow ndax gis nañ ne tamit nit ñi tamit dañoo dem ñàkk law ba ci nit ñi ndax da ngay gis da ngay ànd ak sa xarit tamit te doo ko wóolu na nga ko wóoroon ndax léegi li ko waral mooy koo wax say wax ci loo xam se dafa war yem seen seen diggante mu nettali la ko ne la mu yow kese laa ko wax est ce que loolu tamit jaadu na ci nit ki di la wax ay soxla am te bu génnee fekk ko ci mbedd bi muy tasaaroo euh, loolu du dem ba nit ñi kenn ku nekk tey sa bopp ngir yaakaar ne waratoo am ko wax waxtaanal. dëgg la li waral diggante yi yàqu lu ci nit ñi dañoo maanootu moom ñu seen làmmiñ dañoo rattaxle li ñuy wax mm. parce nit ki su dee sa xarit génne ànd mu wax la benn baat ne mën a yow mm. waroo génn tasee kenn ne ko maa ngi yow rek bu mm-hmm. kenn yëg mm-hmm. benn ngoog mm-hmm. nga gis keneen bu ko diw de nee na nàngam yow rek laa ko wax na bu keneen yëg kooku day nettali keneen nettali keneen nettaliwaat muy dem moo tax day am diggante yoo xam ne si li koy yàq mooy nettali nettali lu ñu war a bàyyi la nit ki su fekkee yéen a ànd yéen ñaar am na yenn baat yoo xam ne su ngeen ko waxantee yenn kàddu yoo xam ne dee sax Mm-hmm. rek moo ko war a dindi dee dee rek moo ko war a dindi yow mm-hmm. ndax uh, su fekkee ne yow danga ne nit ki sama xarit la mm-hmm. xarit am na àndandoo am na te xarit yombatul nañuy àndandoo rek ndax xarit buy dem ba nangu sa jëkkër xarit xarit dem ba nga xam ne sii am nga dara mu tëj ci bëtam uh-huh. siiñ la fan bugg lu dul loolu ñëw ci moom nga torox uh-huh. kooku du xarit xarit da lay yéene nga yéene ko soo amee dara mu doon loo xam ne si lu neex ci moom la da ciy am satisfaction bu baax mm-hmm. nga am njëkkër mu di la ci jàppale di la di la di la xelal mm-hmm. di la digal pour nga toog mm-hmm. mais na xarit yoo xam ne dangay dem ba ñàkk confiance ci ñoom li ko waral mooy dootoo ñooy dem ba yàq sa sëy sax ndax dangay dem di waxtaan ak ñoom la nga xam se ne mooy sa vie privée sa biir néegu sëy muy dikkat amaane di ko toog ak sa jëkkër wala tey ji am na ñoo xam se ne sax dañuy dugg sa biir borom kër sax sa jëkkër di di di yàq ci moom naa ko del def ndànk nag di ko bàyyi waala xel lii ma la boo xoolee di ko kii aha moo tax xarit léegi dafa jafe loolee xarit bu dem ba xam sa biir néegu sëy ñëw tasaare fexe ba nangu sa jëkkër jël sa place kooku du xarit parce que rattaxle baaxul yow nga ànd ak nit ki rek nga ne sama xarit nga yulli ko sa lépp sa vie privée. Mm-hmm. jéeg toog rek ngeen toog ngay def tarata tarata lu la neex nga wax. la nga dencoon démb ak bëkk dem la la neex la naqare nga wax ko te xamoo ko ko jikko mm-hmm. mun na la tromper mun na la nax loolu mooy. ñàkk confiance. ba ci sax da ngay gis xarit boo xam se ne dañ ngeen di xaritoo ba xamalante seen biir seen bitti sa jë sa borom kër dikk takk ko nga xam ne kooku moom li tax sëy ba sax moom di gën a am problème ba da nga cay bëgg a jug mi ngoog te dafay am ci suñ jamono ji da ngay gis koo xam ne seen da ngay ànd ak moom ngir mu nekk sa xarit ba xamal la sa biir ak sa bitti maanaam xam sa sa néegu sëy lu bari xam sa lal mën a xam say bagage yi ngay jëfandikoo sa borom kër takk ko kookee boo ko ta bu xamal kooku tey ji du neexaw jéer xam naa ñu bari ñoom ñoo ne seen toog moo jël seen place toogee ko te xarit la woon daan ànd ak moom. pas sax soxna si mais bay xoolee euh, tata mën nga ne ba ci jigéen ñi nga xamante ne dañuy àndante dem marché xam nga tamit même mën na bañ nekk sa xarit de mais am na si ñoo xamante ne seen moroom jigéen ñi nga xamante ne ñoo bokk koñ. di dem marché sax dañuy waxalante li nga xamante ne moom la ñuy dund seen biir néeg sëy yi moom lañ fanaanoo ci seen kaw yi lay bu ko defee nag mën na dem nag ba ba law wala ñoom sax ñu dem di la ko nettali ba nettali la ko noo xamante ni sax yow amaana nam nam demee sax ak nañ la koy nettalee ça de mi ngi noonu ka nga nit ki xam na looy wax yi bépp lu ci bari ka nga yaakaar ne mooy sa xarit ci nga gën a mën a xuusani ci lu baree baree bari ndax dafa am na yoo xam se ne mën nañ ko waxtaane ci yoonu marché mën ngeen ko waxtaane ci jataay ci boo xam se ne jataay boo xam yaakaar nga mën ngeen ko man a seet ngeen waxtaane ko waaye du lépp ngeen fay waxtaane man de damay faral di wax ne man nit dara du xew ñu ne ci man lañ ko njëkk a dinaa ko yëg mais damay téye sama bopp ndax damay sàmm lu bari. diwa ko fi waxoon. wala ah bañ ko yëgee da yàgg na diwa ko waxoon. Mm. loolu dama koy sàmm. as góor bu ne war koy sàmm nag. damaa mën a nëbbu. moo gën ñu ne dafa mën a nettali. dafa mën a nëbbu moo gën ñu ne dafa mën a nettali. Mm. parce que nettalikat foo ko fekk da yàq diggante. su ko defee bu nga ànd ak kii muy sa xarit kenn ñëw rek. Ah. daaneel sa xarit boobu nangam. Mm. loo seytaane waxul dëgg waaye yaa xam xel bis boo gisatee soxna si la danga naan ah sa xel lañ la waxoon rek lay même lu mu la wax wax doo ko gëm dañ yàqoon sa diggante moom rek loolu ngay gis nit ndox la loo joxoon rek ngay gis danaan kii daal nekk si li ñuy ànd lépp bëgg a yàq day wax wax ju doy waar joo xam ne boo koy gis aha boo koy gis sa xol day mel ne yow lam la waxoon booy gis nit ki rek image bi dalay jox wax jëm la waxoon nag loo xam si ne tamit eh, doy na waar trop trop trop trop trop jeex na fi dootoo ko wóolu hmm. moom la ignoré hmm. loolu mooy li am ci jamono ji bari fi trop trop trop bëgg nañoo rafetal bëgg nañoo ànd hmm. mais da ciy am àndandoo yoo xam ne si ku ànd ak ñoom fa ngay jaaree dootoo bëgg àndandoo ba faaw. loolu wala ñu ñëpp ñu bëri maandu léegi. ñu yeewu ñu bëri amatuñu xarit. nañu ànd ak nit ki rek. mu ndoxtu la ba sonn du la xamal. mu ne la fa tegg dem uti keneen nga xam ne kooku moom. wutul xarit fu mu yàq lay dugg. waaw euh, Tange na ba tey tamit ñu daal dikkaat ci néegu sa yi duñ ci jóg muy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci ndax ñu ngi waxtaan ci boobu ba léegi ci manque de confiance bi waaye tamit ñu fas yéene waxtaan tamit li nga xam ne jafe-jafe yi ndax góor da ngay gis xam ne tamit dafay takk jigéen bëggoon ko lool mu dem ba ci biir néegu sëy bi problème yi ñu ciy wax commencé see juddoo euh, nga yor jigéen ndax da ngay gis góor yor jigéen heure bu ko bëggee bàyyi bàyyi ko nga gis jigéen dem ba gis ci sëyam la ko neexatul góor téye ko di ko xor ñooñal muy jafe-jafe yoo xam se ne jigéen ñi dañ koy dund ci biir nekku sëy est-ce que tamit loolu tamit jaadu na ci jamono fi mu toll. mooy nëpp nëppal bi ngay tàmbali ànd ak nit ki nëbb ko li ci yow lépp di ko wax loo xam ne nekkul bu ngeen demee ba ci biir bu sulee jal boobu fekk fa loo xam ne waxoo ko woon seen diggante du ci neex diggante boobu yàqu rek lay def dañuy wax naan lu fi xew seen diggante bi lu ko lu ko yàq. ñoom ñaar lan la fekk xam nañ bu dee ko jigéen ki xam na bu dee ko góor ki xam na diggante boobu dootu neex sëy boobu dootu neex ànd boobu day yàqu sa mm. fekk ñoom ba ñuy ànd xëy na bëggoon nañoo ànd sëy te yàlla rek tax mm. mais su fekkee yow yow muy ku góor ki yow nëbb nga ko li ci yow mm. wax ko lu nekkul mu demee ba gis la nga xam ne si moom moom moo nekk ca yow da lay daal di kon daal loo ci mën a xool bu nekk nit ki boo ko dee wax wax ko lay dëgg boo àndub sincère daal buñ ko déggee mooy li nga wax mooy indi maanaam nekkin wu neex mooy mën a indi confiance bi am fi mooy tax tamit sëy bi mën a neex di continuer daal. ci waaw bu ce que léegi nag sëy maanaam dëgg yi bari na ci. di wax dëgg di wax dëgg maanaam la nga xam se ne moo nekk nga di ko wax sincèrement nit ñi di ko dundee est-ce am na. am na amul demee bëriwul. te te tamit li may fi may gën a dikki tension na dafa mel ne tamit góor ñi dañoo yàq xoli jigéen ñi ndax sëy yi léegi jigéen ñi dañ ciy dund stress yoo xam ne si ne wala tey ji nga ci ànd ak góor donte na bëgg na la tamit ay mbokkam suufu cabet ga di la def yoo xam si ne tamit dafay metti ci yow ba boo ci jógee sax dootoo bëgg te tee sëy wala nga toog fa am njaboot mhm. danga moo ma yor fan laay njaboot gaay tax nga toog fa di dund lu naqari lu metti soo gisee sa jëkkër rek mel ne sa bi nga gis te munoo dem te defu la munoo abandonné xale yi mën naa say ah, mbokk say mbokk dañuy daal wax naan moo moo bon ñi naan moo bëgg sëy moo bëgg a taxawaalu mm-hmm. fekk yow la tax yow rek yaa ko xam yaa yàlla ak moom ma la ko def ah. te boo waxoon duñu gëm de ah. dañ ñu bëri duñ gëm man kay gis naa ñoo xam se ne dañuy nettali comme ça seen i jëkkër nekku fii day voyage di tukki mm-hmm. waaye lu ci mel ne goro bu la bañ def lam noonu sax bi loxoom dépense dina jaar ci moom mu di ko wàññi mu toog di ko muñ mu di la defal lam la war a defal jaarale ko ci sa loxo directement mm-hmm. dañ koy ñëw jaarale ko ci seen seen loxo ñoom mu jox leen jox leen seen wàllu goro bu doon 100000 lañ jox seen jabar mm-hmm. seen seen yaay bu xaaj jox leen fukki junni day fukki junni xam du xam na ko mais nag góor ñi ñoo war jigéen ji la togg sa kër di la sëy di la muñal nga nekk ca kaw di liggéey ngir moom ak sa njaboot la nga séq ak moom séq ak moom la nga séq ak sa yaay nga séq sa nekk seen diggante ku ne am place boo xam si ne am na ko ci ku ne am na foo war a la nga séq moom bu sa moroom xam sa jabar sa diggante moom sa yoon yaay nekk sa diggante ak sa yaay sa yoonu jabar nekk parce que tamit neexul nga jur doom yar ko ba mu màgg nàmpal ko ba mu mat yar ko ba mu màgg mu liggéey ñëw mm-hmm. yor alalam doomu jaamu nangu ko neexul mm-hmm. waaye tamit neexul tamit doomu jaamu ñu ko fu ko war a jure mu mel na mu mel na mu mel na mu war allah mel na ma faj kenn. ñu yor teg ci na na sëy. jaamu yàlla sëy lañ ko sant. goro bi ñëw def ko comme maam comme mbindaan tamit loolu neexul. société bi li ci nekk yàqu dafa bëri. torop luñ war a defar. dañoo war a jàngat jikko yi dañoo war a dem defaraat jikko yi waxtaan suñu biir am échange de com échange de comportement mm. waxtaan suñu biir diisoo mm. changer yu bëri mm. yoo xam ne mi ngi ci biir société bi bëri na bilaay tension na tama li mu gën a jaaxal sax mooy waxkat yi saa su ne dañuy toog di waxtaan di ngir lu gën a rafetal jukka yi waaye saa su ne dangay gis kaa eh, yi mel ne dafay gën a garaaw kenn ku nekk ci lim la dund bu la ko waxee dangay waar mu nekk loo xam se ne eh, waroon nañ cee waxtaane lu yaatu yaatu xam naa donte ne waxtu wi da du bëri xam naa ne ñu koy daal di tënk ndax ngir beneen yoon xam naa dinañ gën a yaatal ñu gis ne liñ fi waxoon lépp nag def na ko muy faram-fàcce na fi lu am solo ñu daal di bàyyi sonasu mu daal di tàggatoo waaw xam naa ñu tàggatoo walla rek di émission bi moom nekk na émission bu am solo waaye tamit comme li ñu wax rek ndax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ci néegi sëy la bokk ndax néegi sëy mën nañ ne sëy bu amul problème rek amul kala wax ak kala waxul donte nag problème yi mën na gën a mettante ci benn côté mais tamit yëpp yem xañ na nag euh, te terewul jigéen ñi ngi seen biir néegi sëy di ko muñ comme nam leen waree comme ni ñu ko waxee sànq parfois jigéen romb la mel na mu war a mel ngaan ay diw mi ni mel ay diw mi ñi maa ko ñee fekk na yow la may dund ci biir néegu sëyam bu la ko waxoon da lay jaral sax yow dootoo bëgg di sax am borom kër te góor ñi tamit ma yàlla baal ak ñi ma ko war a wax mais dafa am góor ñoo xamante ni maanaam kenn leen rawul parce que bitti gi dañ fiy mel ni comme xarum yar bu ñu duggee seen biir kër yi mel ni gaynde mën nañoo génn si mbedd yi léegi maye mille francs dugg seen biir kër 100 francs sax bu ñu ko joxee seen soxna ñu war a see jënd kaani bu ñëwee ñu ne ana weccet ba am na si benn euh, waaye boo xamante ni mi ngay wax naa góor yi léegi bu ñu lay doxaan loolu laaj ñu joxe mais boo demee ba si biir néegu sëy bi mbuusu xorom bu 25 francs sax boo leen ko jënd looyee buñ la ko joxee boo buñ la joxee 100 ba na génn si mbedd maye 100 000 duggee si biir kër mel ni gaynde laaw bu xasee ba dugg rek soxna yi dootuñ ko ñemeeti xale yi dootuñ ko ñemeeti kon guñ tamit nekk nañ ñoo xamante ni kenn rabatu ñu baal ma tamit ne moo di goro yi parce que am na yu bëri yoo xamante ni ñooy yàq seen sëy doom yi góoñ tamit nekk ni man nga ne guur benn nopp lañ leen seen yaay wax rek sa soxna si lii sa soxna si laa rek ñu gëm ko bu ko defee nag mën nga ne mën naa ne sëy yu bëree bëree bëri di yàq te man nañ ne suñu yaay yaayu kër yi ñoom ñoo ko yàq te loolu tamit mu nekk loo xamante ni góor gu nekk sa jabar bi nga xamante ni yaa ko gis sa bopp taqal ko sa bopp na nga fexe ba lay yàq seen diggante yéen ñaar bu mu jugee ci goro bu mu jugee ci njëkkee bu mu jugee ci keneen ak keneen ak keneen fexe sa wala sa nopp yi may la kat nga gisal sa bopp boo gisee ko bu la neexee moom sëy bu mën na faaye mais diwu wax moom wala diwu ma la fekk na yow rëccu dafay fekk ja ñu doxee fi rek tàgga tàggatoo wala di wax ne émission moom macha allah taaru Sénégal moom nii rek lay doxee saa su nekk euh, thème bu leen xalaat si àdduna rek ko indi incha allah boo xam jafe boo xam ne askan baa ngi koy dund rek dinañ ko indi gën koo yaatal yaatal ba kenn ku ci nekk rek euh, nga gis ci sa bopp bu baax a baax ndax euh, lu bégloo doomu aadama yi rek mën nañ na ci la ñuy dox saa su nekk di santaat bu baax suñu bi nga xamante xamante ni moom lañ invité woon tey di sant suñu caméraman yi Cheikhouna Ndiaye ak Moussa ak El Hadj Ousseynou Ndiaye mi nga xamante ni moom lañ daan àndal émission bi di sant euh, Khadija bi nga xam ne mooy jàpp ci montage bi di lañ jox jotaay ci seen émission Taaru Sénégal jërëjëf soxna Asou ci kàddu yi ñu daal di bàyyi tànn soxna Ndiaye bi nga xamante ni moo nekkoon suñu invité tata soxna ñu bàyyi la nga tàggoo jërëgéen jëf yi ñëpp maa leen ñaan yàlla boole ñu jéggal def ci ay xeewal defal leen ci lu kawe seen jot yàlla yàlla wasal barke kontaan naa bëgg naa maa ngi ñaan yàlla yàlla bëggal bu nekk ñu ñaan yàlla defal ñu ay xéewal te may ñu gudd may leen ko yéen ñi di ay ndaw bu fa ngeen bëggee eggale rajo bi yàlla ko fa yàlla eggale barke si Xaadimu Rasuul laay kontaan naa trop émission bi ndax jigéen ñi ñooy réew mi loolu am na loolu am na bu lu woon jigéen dara réew kër goo dugg fekk ko fa jigéen doo am ko la may dox nga naan doo am ko la jox nga lekk mm-hmm. Mm-hmm. kër ga day fay te jigéen tamit day muñ day muñ muñ kat dëgg dañ koy xam ci sëyam lañ koy xamee su neexee nga toog su naqaree nga dem nee nañ foo muñul toog fukaar dara du la fa fekk yàlla nañu yàlla bàyyi si muñ sëy ñi amul soxna yàlla leen ma yàlla may ñi amul borom kër yàlla may leen ku ñu seen sëy yàlla yàlla taxal seen diggante ak seeni borom kër ak seeni gorom ak njaboot bi ñu sëyal yëpp ndax sëy tam jane parce que jigéen nee nañ layu la day teg rek mu yaatu ñëpp wanag la tamit lu ne lay gis te du wax kenn du xam ku duggoon ku ko génn ak ka dugg kenn xam moo tax ñun jigéen ñoo sonn jigéen sonn jigéen moo sonn góor moom lu ko neex la def jigéen moom sonn mm. ku bëgg a yàlla tax rek bu message yàq sa sëy bu téléphone yàq sa sëy boo xasee wóolu nit ki rek teg ko place te xam ne loolu day dem. moom mooy luus de. Mm. dem ba ci fin bi moom góor bi mu am gerte mais yow mi toog di sëy te yàlla rek tax. Mm. jox ko qualité bu mat sëkk. Mm. doo ma sa am gàcce. sa njaboot day barke. yàlla ñu yàlla jàppale. yàlla ñu yàlla defal ndam. yàlla émission bi sax dàq. yéen ñi koy organiser. def ko nii. Mm-hmm. yàlla na doon ay émission yoo xam ne dalaloon mu nekk tamit bàjjenu gox ni ma leen ko waxee comme Jusra ngeen daal di gis tamit émission bi niñ ko bëggee woon mu daal di def ba indi ñu sax lu kawe su njort tey ji nag ñu doon waxtaanee nag ci temu jigéen ñi muy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci biir néegu sëy na li nga xam ne moo di manque de confiance bi nga xam ne am na ci biir néegu sëy ngeen daal di gis tamit li nga xam ne faram fàcc ne tem yu am solo ak ci diggante jigéen

Moussa ak eh, El Hadj Sow mi nga xam ne moom lañu daan bokkal émission bi ak Xadiña eh, moo nekk kii montage ñu dakk ci sant bu baax di ko ci gërëm di leen jox dig dajee ci beneen émission taaru Sénégal jërë ngeen jëf Sénégal Daaru Sénégal teranga Sénégal